bi nga xamee ne lancé nañ projet bi ñu duppee defaraat yoonu Touba yi tey di ñetteelu fan bi ñu dooree liggéey bi ak léegi ci bërëb yi ñu tàmbalee bokk na ci kër sëñ ñaan Diop yoonu Daaru Rahman ak 30 bi nekk sexaw ga ngir fexe ba jëlee ndox yi ci mbedd Touba yi murit bu nekk ñaar téeméer weer wu nekk di ab jaayante ngir defaraat Touba mu jëm ca kanam. waa ji bokk si ñuy liggéey ca Touba ca kanam di wuyoo ci turu Ismaïla Niang di àddu ci jafe-jafe yi am si benn soxna bu loxoom jotul ginnaawam muy am ndox mu koy sonal lool si këram. man bi ma gisee soxna si ndeysaan mu taxaw ci buntu kër gi ma ñëw laaj ko lan la mu ne naa dugg ci biir kër gi mu wan ma lan la bi ma duggee sax sama yaram dafa daw sama sama yaram yëpp dafa bañ daal ndax lii daal dafa dafa doy waar waaye yàlla baax na ba ah, kilifa yi ñu ci bare gis nañ ko ñëw nañ fi ba gis nañ ko te jàpp naa ne comme gis nañ ko rek bu soobee yàlla dina saafaro noo ngi leen ci soññiwaat bu baax nag di leen ci soññiwaat bu baax ndax ñi fi dëkkee wax dëgg si yàlla ah seen loxo jotul seen ginnaaw te eh, wax dëgg si yàlla bëgg nañ ko leen dimbali dewaan def naa fi ñetti fan yoo xam ne daanaka yàlla daf maa booleeg moom su ma ñëwee bala may def dara damay ñëw ci moom waxtaan ak moom waaye bi ma diisoog moom nee na ma lii daal yàgg na fi ndax ah, tiwo ndox bi jógee jumaa ja ah, dafa dafa jaar fii ci buntu kër gi léegi dafa néewal doole fii ba miir bi fële maa woote woon sax ak ah, sama bokki taalibe yi fii ndox mi doon jaar ba mel nii ñu sotti ko ci boobu ba mu fees li ci dem ci biir sax dafa bari après ñu wut euh, saakub ciment sotti ja ba foofa dootul dugal ndox ñu jël suuf su bees si daal di cay daal di foofu ndox mi daan jaar moom dootul jaar. waaw jàpp naa ne daal lii ci biir kër gi daal moom mooy yitte yi pour mu génn kër gi. ginnaaw yàlla dëkkandoo la la ak waa Touba ca kanam waaye moom daal ku ko dimbali daal li lay war a suli ngir jëmmi sëñ Touba daal loolu moom dina man daal bu ko gisee ba léegi daal amatuma jënn yitte amatuma jënn yitte loolu mu tàqalikoog lii daal projet de d'assainissement bi waa Touba ca kanam taxawal ngi defaraat yoonu Touba yi di ndigal xalif général de murit di Serigne Mountakha Bachir lenn la rek ci seenub liggéey waaye seen yéene mooy fexe ba dëkk bu sell bi di Touba jëm ca kanam